trois jours ñu ngi fii def ko sa ko ngeen leen terrorisé ngeen toog di ko xool def lu ko fii nii am fii dëkk bu tekki la gaa donc ñu ngi processé di wane suñu naqar ñu ngi xeex ak ñoom nag parce que ñoom dañoo jënd ay nit 300 dollars ku ci nekk wala 150 dollars par jour pour ñoom ñu ñëw taxaw leen xam nga loolu gàcce loolu mooy ñun nag fii ñi fi nekk yëpp dañoo engagé wu. fii que on n' est pas content. Mhm. de ce qui se passe au Sénégal. Mhm. on n' est mhm. pas ñu ngi fii ba 9 bu ñu paree fii UN la ñu nekkoon léegi ñu ngi fii maison du Sénégal. Euh, ni ñu ko waxee sax après dernière étape bi moom mooy ci hôtel bi Macky Sall la ñuy bañ muy nelaw ni mu ñuy teree nelaw ñim ñuy jooyloowee noonu lañ ko bëgg a jooyloowee tere ko nelaw dañuy fayu laa la wax lim ñi def yëpp dañ koy fayu tey ji ci biir New York monde bu yëpp xam nañu koy Macky Sall monde bi yëpp gis nañu li xew drapeau Sénégal musul jógee nii biir New York City donc fi mu ne nii Macky Sall demal nga tëdd nelaw demal fi jeexal nga sa yow ak say morom jeexal ngeen. ñu ne dafa am ñu ci dooroon euh, quelques grenades lacrymogènes ba ñu am problème. waaw comme dañ fee indi ay nervi donc dafa am nervi boo xam ne dafa yore woon pepper spray mu spray comme suñu benn jigéen boo xam ne après bi ko ca vérifié allez mi kii kii nañ ko toppatoo nañ ko ba mu ba mu kii mais ñun suñu bopp tey jii ñun ñoo yore suñu pepper spray ku ñu jege te jii nañu fayu ñun dañoo yore ñun fi mu ne nii comme ni ñu yore woon démb ñun ñoo ñoo ko yore tey jii ku ñu jege rek nañu fayu.